Eh, ñu ngi joindre son équipe vraiment ñu ngi leen di ñaanal un grand succès à la hauteur de la victoire que nous avons eue. bien sûr il va falloir que suñu coalition bi euh, ñu téye ko bu baax a baax ndax li ñu am si tuuti expérience mooy boo gagné bien sûr am. l'enthousiasme, l'effervescence, mais tout de suite, il faudra faire face aux défis. Aux défis du pays, euh, mais aussi aux défis politiques, parce que ñi nga daan aussi duñ dem rek di nelaw ñoom it voilà dinañu jéem a seetlu luy doxal donc suñu kaw coalition bi euh, dama ci gis euh, euh, de campagne wax na ko monsieur Moustapha Guirassy mooy ne dafa doon un aéroport euh, d'excellente ressource loolu defe naa ne war naa mën a jàppale gouvernement bi ci fànn yu bare bare parce que ce sont des hommes et des femmes d'expérience euh, ñoo xam ne nii ci domaine yu bare bare bare bare am na lu ñu la war a mën a jàppale jàppale euh, gouvernement bi ci li nga xam ne moom la bëgg a dérouler les programmes waaye ñu doon aussi des hommes et des femmes politiques qui pourront aussi soutenir suma gis-gis l'action du gouvernement parce que action gouvernement aussi dañu koy défendre di ko expliquer euh, di ko suqal kon ñaar ñooñu day dal di doon euh, élément yoo xam ne yii bu ñu sukkandikoo ci suñu coalition bi euh, dinañu la war a mën a jàppale yow ak premier ministre ak toute l'équipe ak tout l'état du Sénégal ah may aussi wax ne dinañu inaugurer ci ni ma gisee aussi un nouveau style de gouvernance sant la nag ci geste bi nga defal Aminata Mbengue Ndiaye keroog Sénégal yi rafetlu nañu ko defe naa ne li nga wane ko aussi mooy ñu dellu si ci suñu suñuy valeur cardinal nga xam ne vraiment dinañu jox respect aussi mag dinañu considérer soxna euh, dinañu jàppale néew di doole yi defe naa ne message boobu aussi mooy message bi nga xam ne coalition bi bëgg na la koo téye ba mu doon vraiment un nouveau style de gouvernance boo xam ne yaakaaru waa Sénégal euh, vraiment dina mun a réaliser wu ñu nit ñu jàppale leen ci bu baax pour que ce soit un Sénégal nouveau boo xam ne bii nous serons tous encore plus fiers d'être Sénégalais notre jeunesse sera encore plus encline à rester ici au Sénégal à ne pas prendre les bateaux que nos personnes âgées puissent être dans la sérénité ñu bañ leen a gisee ci benn nit ku am quatre di manifester parce on a bafoué la démocratie kon loolu yëpp it euh, ñu ngi en tant que coalition nekk à votre disponibilité ensemble parce que dañoo campagne ba six heures du matin ñu may féliciter yenn ministres nee naa leen dañu campagne ba fajam nag après di leen seetaan déedéet dañuy bëgg nag am ci ndam loo xam ne nii kenn am. Euh, ci Sénégal kon ñu ngi leen di ñaanal euh, di ñaanal toute l'équipe gouvernementale pour un très grand ñu ngi leen di gërëm di